ndax fii nu toog Cheikh Massamba Diop way juróom wa fii ci Touba gi moo fi njëkk a indi aw ñam ne moo fi aw ñam ne ndax bi sëriñ bi wët Touba ba gis ko ndax ne fu ñuy wax Daaru ne foofa la njëkk a sañ a am kër ci kaw suuf ci kaw suuf ne foofu Daaru Salaam la njëkk am kër ci kaw suuf ne ba mu ko sañcee am fa ay weer ne daal di woo Sëriñ Gaawaan ni ko ne ni ko toogal fii ne mu ne mu toog foofa at ak genn wàll ne mu ne ko may naa la kër gi ak li fi ne lépp ak li lépp ne daal di jóge sañc bi ñu wax juróom-ñaari xalifa sëriñ Touba juróom-ñaari xalifa sëriñ Bara borom juróom-ñaar ku ko dégg xam ni ñu ngi bëgg a bàkk sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke di village bi nga xam ni waa juróom bi di sëriñ Bara Mbacke daan na fa faral di ne ngir jàng alxuraan waaye it wéetal boromam subhaanahu wa taala ci boobule gox sax foofee lañu tàggatee moom sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke ci wàllu liggéey doon na def lu mel ni sàmm daan it yëngatu ci mbay saxit ci jàng alquraanu karim ak it ni nga xamante ne nii noonu la maamam ju baax bi cheikh ahmadou bamba xaadimul rasul bëggee woon bëggee woon ay njabootam wëyal ci alquraan loolee sax daanaka moo taxoon ba ñu bari xamuñu woon kii sëriñ siidi moxtaar mbàkke ba jamono bi nga xamante ne ni moom la wutewu baayam ci xalifa gi loolu mi ngi am ci atum 2010 niki ñaar fukki fan ak ñett ci weeru moom Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ba mu yegsee ci bopp xilaafa bi wutu fa baayam bi di Serigne Bara fexe woon na ba sàmm li nga xamante ne ni moom la fi woy waajuram bàyyi woon mooy dajale njaboot gi doon leen yiir aar leen waaye tamit daan déglu kenn ku nekk ci ñoom te it di leen laaj seeni xalaat benn fan ci weeru ci la moom mi di sëriñ Sidi Moxtar Mbàkke toog toogaayu maamam ju sell gi di sëriñ Tuuba Xaadimul Rasuul ci bopp xilaafa gi mu wuti ci jal bi sëriñ Baara Mbàkke Falilu door nag ay liggéey yu am solo li ci mel ni defaraat jumay Tuuba yokk ci ñaari sooroor jëlit ay koppar yu bari toll ci juróom benn milliard def ko ci yamul foofu moom sëriñ Sidi Moxtar Mbàkke soobuwaat na ci beneen jumaa ju mag fii ci Ndakaaru di jumaa yi Masaalikul Jinaan jumaa yi nga xam ni moo gën a mag ci réew mi ginnaaw jumaa yi Touba mën nañu sax dem bay wax ni jumaa yi gën a mag ci Afrique de l'Ouest moom Serigne Sidi Mokhtar Mbacké daan na def at bu jot mu jël ci ay kopparam jox ko ay jullit yu yàlla ñu dem ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu sax daan ko amal laata muy yegsi ci jël bi moom Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mi ngi génn àddina benn talaata yamook juróom-ñeenti fan ci weeru janvier atum 2018 Mbàkke mu ngi génn àddina juróom-ñeenti fan ci weeru janvier atum 2018 dem ñibbi àjjana fekki baayam gu sell gi ak maamam gi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimul Rasul ci bu muy am juróom-ñeent fukki at ak ñeent ginnaaw boobu la boroom mbégte mi Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru wutu ko ci jël bi ñu koy ñaanal sunu borom may ko gudd fan mu yàgg fi lool ci ànd weer